li ma bëggoon peut-être préciser mooy ñun ay artisans lañu mais avant ñuy nekk ay artisans ay sénégalais lañu. yor ay soxna yor ay doom ñuy xëy di dem ci école yi di dem ci université yi donc ni suñuy réew di doxee ci wàllu éducation ci wàllu santé ci wàllu transport ak ci lépp lu mun a doon daf ñuy intéressé ñun donc jàpp naa ni am nañu sañ-sañ xool peut-être homme politique ak parti politique boo xam ni vision ak gis-gisam. ngoon ak ñun suñu vision en tant que artisan ñu engagé wu li bees xam nga mooy lan <coughs> ñun dañoo yàgg utiliser c'est-à-dire dañu gëmloo rek ne que yéen ay artisan ngeen toog leen ne bés bu heure voté jotee ñu ñëw waxtaan ak yéen fexe ngeen voté Pastef dafa ñëw ni yéen da ngeen bokk ci réew mi kon bu fekkente ne ni am nañu yéene am vision ci réew mi jàpp nañ yéen en tant que artisan aussi Mhm. war ngeen a mën a am seen place ci biir instance yi. mën di joxe seen i seen i xalaat par rapport ak ñi nga xam ne. pour développer seen secteur non seulement pour développer suñu secteur mais développer le Sénégal de manière générale. ok donc moo tax dina ñu fexe comme ñun aussi parce que souvent artisan bi ak artisan bi ñoo mun di waxtaan xëj na tey dina compliqué euh, tey un cadre wala peut-être entre guillemets wala un magistrat wala keneen mën a wàcc ci atelier yi. waxtaan ak artisan yi expliquer leen réellement les vrais enjeux de développement <coughs> mais ñun en tant que artisan xamante nañu ok on partage beaucoup de choses ensemble donc je pense que communication boobu je comprends je comprends